جم الله إيفانس إيفانس إيفانس الحمد لله وصلوات الله وسلامه على أفضل الموجودات وعلى آله وصحابته أجمعين نوغي سانتا يالا بو باخ بو باخ تاي جولي ci ki ka gënal ci ñu mu tànn ñépp ki ka gënal ci ñu mu tànn tànneefu tànneef yi muy xayru xalqillaahi boroom ñaari taxawaay yi boroom ñaari wàccuwaay yi boroom melo yu bari yi boo ne Mamadou baax na waaye boo ne Maadi yu baax na borom ñeenti araf yi di julli ci njabootam ibnu Mariama yàlla def muy njiital ahlu bayti mosul am di ñaan yàlla mi yónni ay ndawam joxe ay ndigalam ku ko neex mu mu soob ko nga jël fala soob nga ne fa yàlla moomu yàlla nañu jàpp te jàppal nu sunu ngëm ci barkeb xayri xalqullahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi li may wër moo di alxaq yaani li ma jàkkaar lool nii tey ci daara ji moy al wujud wal haqq l'existence et la vérité bu ko defé waaw xaw na laaj déglu ndax duma ne dafa kawé waye dal xawna naa ci philosophie al wujudu wal haqq li dal la bëgg tay ñu di ser tawu ci jox leen ci ay yóbbal ba waxtu yu jot rek incha allah ñu dellu ci borom jamono. في الكون موجودات وكل موجود في سعي إلى أهداف وغايات ولكل واحد من الموجودات منطقه وفلسفته وحكمته التي عليها يعتمد سعيه فللسياسة سعيها وللعلم سعيه وللاقتصاد سعيه وللثقافة سعيها وحتى الرياضة لها سعيها وكل سعي في هذه المجالات أنصار ورجال ولكن ولكن الذي اعتلاه عرش السبخ والتفوق في كل سعي هو الحق لبنيور لبنيور أدونا لبي لبي يمو كونك يمو لانك يمو أمك تهدف أمك غاية تو politique bi doxinam am na nu ñu ko déggee ñoom économie doxam ñakay def am na nu ñu ko dégg culture bi ñaka yor am na nu ñu dégg doxinam ba ci sport bi sax ñi ko yor am na lu ñu dégg doxinam mais moo wax ne dox dox yooyu yëpp kaa ci dem am na ñu ca far fi mu ne. waaw waaw. ñii xaar lii ñëw kenn la watul kenn la watul. ñii xëccoo réew mi fi mu ne kenn la jar na ko. bu fekkee réew moo ko jar ndax àjjana jarul lu ëpp luy may wax. am na lu bu teree nelaw gaa yi ñun tim am na lu ñu war a teree nelaw mooy sunu lii ndax suñu lii mooy yóbbu laa ku ne am nga foofar ma wax di nettali bindu sama sëriñ sama yaakaar sama meetar moo wax ne ku mënti yëngu loo mën di te domaine boo koy wute nee na am na lu jël ndam la ba pare ma ne ko góor gi lan la mu ne dëkk xam nga Descartes feer làmp ci digg bëccëg bi di niit ñu ne dafa dof mu ne dofuma lu xew mu ne dëgg lay wër xam nga muy tax jant bi génn na xam nga Descartes li wax rek weddi na ko moom ndax kuy xañ ci weer ba jant fenk mu ne xamal la léegi wër na la li wax rek weddi na Descartes bi mais nag am na solo ndax cax la jant baa ngi ne dàng mu yor lampam di nii looy wër mu ne je cherche la vérité yéen xam ngeen ne <laughs> xam ngeen ne moos am na lu bu ko ab torche di wanee ci une heure une heure bëccëg treize heures dëgg googu du gaaw feeñ mais ndax bi may wër moo kawe ba sax logique bi may doxit du bu quartier ndax bi ma gëm moo kawe boobu bàyyi bi laay nii dëgg gii moo tiim lépp ne lu nit mën a def ci dund ngir ut xereñ nee fa muy jaar di wër dëgg ga nee na na xam lii nee dëgg dafa am ku mu jox mbëggeelam kooka jox ko mbëggeelam Baay Ablaay kooka kan la mu ne kooku mooy alaaxlu mooy xel. mu wax nag ni moom bépp activité bu xel ëmb mënul am jubluwaay bu wér bu dul diine. lutax mu ne Baay Ablaay ne bu may wax diine nag mooy diine di sëstu tës calaayam di alxaq Baay Ablaay loo baax mu ne alxaq mooy lépp ndax xàqu ci boppam mooy yàlla yàlla mooy xaq daal di ne xulil xaqu bi rabbikum daal di bindaat te suuf ne huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa dinil xaq alxaq sëriñ bi fan laay jaar ba am xàqu mu ne nag domaine boo dem di wër vérité te yow la ngay wër dëgguwoo ca muy ab sadiq bàyyi lay ne doo am daa di ne nag alxaq dëgg contraire mooy baatil neen sadiq dëggu mooy loolu may bañ a wax mooy wax lu dul dëgg sama ay waay jaajëf baal ma àq de jéggal ma laay jéggal ma laay jéggal jéggal ma bu baax daa di ma xool mu def ab ton ma dellu ca ligne daa gën a am imaamul mahdi wal xaq. daa dina ma kaay ma tegte la. looy war dëgg ma ne moom laay war mu ne xoolal sama ak dëgg. daa dina bàyyi lay ñëw na. ngir yeesal. yeesalal ñëpp. yoon yi jëme nit ci dëgg. waaye itam solo gi solo. solo gi nga xam ne dëgg am na ko am solo gi dëgg am solo ci àdduna ak alaaxira daa di ne bàyyi laay sama maam moom sëñ Ablaay day yàlla jox na ko bu fekkente ne dëgg waruwaay la yàlla jox na ko nos ba fan lañu jëm mu ne ngir moo mat leen jëmi ci dëggu sëñ Ablaay nag fabi istimaa'il haqq wa sidq يتكون إطار إطار كلمة التوحيد وتنتشر فلسفتها الحياتية في ربوع الحياة نانتي دجد دك أدك دجد دك أدك نانا لا تخنون لا إله إلا الله خم ندكي keroog lay juddu ndax bu boobaa la ilaha illallah mooy orienté jiital njiite bépp nit la ngay def bu boobaa soo fexee ba dajale dëggu ak dëgg nee na bu boobaa nag ci la la ilaha illallah bu ànd ak yow loo def muy tawxiid sëñ Ablaye nee na feeñu xayru xalxulaahi fii ci taw bi nee na mooy feeñu dëgg ci lu dul dëgg maanaam dëgg moom wax na lu lu dëgg ba faw mooy feeñu wér ci lu wérul bàyyi loo bëgg a wax mu ne ay feeñuk bàyyi laay day wunde ne mooy zuhurul aslah lil xalqi dangaa jiite nit ci politique ma ne waaw sëñ Diop laa boo bëggee am jikko joo xam ne foo dem ñu ne yow mu ne defal li bàyyi lay wax boo dee économiste te bëgg loo tëral muy yiw sëñ Diop laa ne defal li bàyyi laay wax. soo bëggee am xam-xam te doo daanu doo jàng doo jooyu sëñ Ablaye nee na defal li bàyyi laay wax boo bëggee am culture bu set wet Baye Ablaye nee na defal li bàyyi lay wax nee na même sur le plan militaire nga doon un soldat buy jëriñ réewam askanam nee na defal li bàyyi lay wax rek doy limaamu alayhi salaam ci li mu wax bi mu bind kama dafa mel sama maam daal feeñam day wundu yar bi nga xam ne buñ ko yëkkee sous développement daw daw daw nga bu dul woon ak bàyyi laay la ndaw laan ka xew gaay ki tax ngeen di laay yàlla koy Evans Evans Evans